daa wax de. Hmm. jàngoro ji dugg Touba nañ ñaan sëñ Bamba génneel lu ko waaye sëñ Mourtala sëñ Mountakha nay joxe ñaar téeméeri million nga ne jàngoro amut te jàngoro ji nekk Touba ma dëkk Touba. Hmm. xam nga loolu duma ko wax. Hmm. moo tax nag euh, maa ngi wax yoonu mu yépp ñu dal. sant yàlla man kenn mënumaa jaxase président de la république kenn mënumaa jaxase Ablaye Diouf Sarr biñ may woo fekk na ma jokkoo ak Mansour Mbaye pour jël communicateur yépp ci jéem xeex jàngoro ji. man ak El Hadj Mansour mbay ñoo ngi doon réunion pour woo communicateurs yi ñu xeexi jàngoro ji fii bu fi jàngoro duggee communicateurs yi yëpp war nañoo jóg. Hmm. waaye Ablaye nag sañ naa ñaan ci barke bu sëñ Bamba. Hmm. duggee Tuubaa yàlla ko bu sëñ Bamba génnee. Hmm. mais euh, ñi la wool woon sànq euh, bi nga leen waxee loolu kon dañu ni jeex na. ah déedéet biñ ma wooloo xam nañ ni ci ci kii laa nag te liñ ma woo ñoom liñ ma wooyee sax wàññiwul dara lu baax rek lañ ma wax. Mbaye Pekh porteur de waa nga ñëpp xam na sa wax. boo waxee ñëpp da lay déglu. kon nag xamuñu woon ni la ko waxee waaye del wax yow li ngay wax luy jëriñ président xam nañ ci wetu président nga nekk. Hmm. man leen dajale naa fi mu ne communicateurs yi pour wax xeex ak jàngoro ji. waaw. barki dem laa dem ci plateau bugaan yónni ma ma taxaw ci plateau ni ubbi nañ suñuy bunt pour xeex jàngoro ji. mais hmm. kon du wax leneen. Hmm. sama lamiñ wi luy lor Sénégal wala luy kenn jóg lu ma waaye yéef koo dégg nag mu contre ma baa mu xeex ma tax. bi ma yàlla bind nag sëñ Tuubaa du ma daw ci sëñ Bàmba tey ma ci defal fu ma toll di ko wane sëñ Tuubaa gëm moom laa wóolu te président Macky Sall defal na ma teraanga jooju ma nekk ci wetam du song dara ma di ko xeex Abdoulaye Diouf Sarr di kenn ci man poste santé bi ñu may tabaxal peex léegi ñu tàmbali ko kon ñiy wax ak ñiy bind nañu wax lu ñu xam jërëjëf man communicateur buy wax jàmm laa buy def jàmm waaye am nag bu amee Touba sañ naa ni yàlla na ko fa Serigne Touba génne. Eh, léegi yéen communicateurs yi seen euh, xeex par exemple est-ce que organiser wu ngeen ba pare ak euh, nan ngeen ko fas yéene amale léegi léegi laa jokkoo ak Mansour Mbaye organiser wu nañu ba noppi. Mhm. man ak Mansour mbay mhm. ak ñoom bekkaay ñun ñëpp dañuy jël sunu matuwaay yënguñu ci wax mais dañuy yëkkati sunu alal jàppale yëpp gouvernement bi ngir xee ngir xeex li lii hmm. bu fi duggee communicateurs yi seenu xeex daf cee war a war a jóg te man bu ñuy xeex jàngoro ji may jiitu. jërëjëf lool loolu nii nii la demee ku déggoon lool na dégg lii. Hmm. bu ke merewuma kenn nag. Hmm. maa ngi balu murit yëpp itam parce que euh, Touba ngi jóg ñëpp a ngi may woo mais ñi ma woo jàmm lañ ma woo lu baax lañ waxanteeg man. lu baax it laa tontu. luy may réew mi ndam nag te ko may Macky Sall maa nga ca ñuy wax ñëpp maa leen gën a ma Macky Sall. jërëjëf. waa loolu la. jërëjëf Mbaye. jërëjëf lii dong la. mu ngoog mu nekkoon ab Ablaye euh, mbay Pekh